ndox mi ci quartier Bakhiya bi nga xam ne moo nekkee ci Touba foo ko takkoon weesu na ko. fii ci Bakhiya maa yor wanag yee ca biir ak margo bi di waajal soxna yi ndox moom lu ni manqué la ndax nun ni nga xam ne noo nekk ci armeel yi li ñu fiy jànkontee ci manqué ndox ëpp na lool sama wanawee bi ma dundee ba nga xam ne yegg naa ca wanawee ñu aw ma ndox damay daw duggul làqu si fii ndax ku yegg si soxna si ana ndox mi meer ndox sax lañ ma tuddee. manqué ndox gi moom yàgg ndax ñun suñ robinet bii fi alméeri ci lañ ko xëcc teewoo alméeri fanweeri junni lañ defoon indi ko amuñu ndox ban fii door a ñëw doon doon root ci basi bii si bi alméeri yi root nañ fi ba taay ndax amuñu pexe te amuñu ndox ci boppam damaa jënd damaa jënd ndox teewul jeex na tàkk yàlla xam na ne sachet yi moom laa mujj di jënd ay mbooloo laa yoroon léegi mbégte am na ndax bënal nañu leen forage ba ndox maa ngi walla ngaan liggéey bi waa daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ko amal ànd koog daayira Masaalikul Jinaan bi nekkee ci Toulouse ci France ak kuréel gi nga xam ne mooy tubaa xepp ndox mu neex. kenn ku nekk mën naa ñàkk ndox ba mu des ñi nga xam ne dañ leen di waajal ndax ñoom mënuñoo ñàkk ndax loolu rek lañ leen deseel ñu gis ne ñu ngi am ay oto otoy ndox yu ñuy may léeg-léeg tubaa ca kanam léeg-léeg maaw rahmati waaye du tax mu doy ñu xam ne li koy saafara dëgg-dëgg daal mooy bàq am forage su boppam. comme nag daayira Moukhaddamatoul Khidma ni muy def su amee lu mu soxla rek daf koy wax walla mu leeral ko ci presse bi wala ci ndaje yi ñu def ci la ko waa Touba Toulouse déggee kàddu googu biñ demee ñoom ci seen daayira ñu réunir biñ ci réunion yàlla dogal ñu am gis-gisu bëgg def forage boobu. ñu jël engagement ngir def forage fii ci bàq Baqiya léegi nag forage bi nga xam ne moom lañ bëggoon a def nag ñëwoon nañ ba tàmbali ko. waaye liñ demee ci Cheikh Mamadou Mountakha muy joxe ndigal li dafa wax ne na joxe na ci ndigal waaye na ngeen ko yaatal ci lañ daayira Muxaddamatul Xidma nag euh, jokkoo ak Serigne Ousmane Mbacké mi nga xam ne moo jiite Touba Xip ndox mu neex nga xam ne ñoom ay proviseur lañu ak ay techniciens yoo xam ne lépp lu aju ci wàllu ndox wala lu ci aju seen xam-xam ci la màcc wala ñu ay taalibe yoo xam ne dañuy liggéeyal Serigne Touba ci fànn googu def ay liggéey yu bëree bëri ci dëkk bi ak ci Sénégal Euh, ñu ngi nii teew professeur Serigne Faye mi ngi nii mbokk ci kilifa yi ko jiite Serigne Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo topp ci Serigne Ousmane mi ngi fi ak Serigne Djili Mbacké ñoom nag ñoo ñëwaat saytuwaat liggéey bi fii bi ñu ñëwee xool ne forage bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a def kat euh, méngoo wut ak norme yi nga xam ne moom la ñu soxla ñu wax ñu ko ñu wax ko waa Touba Toulouse ñoom it ñu wëlbatikuwaat topp ci seen ginnaaw ngir déglu leen ci ci lañ defee ay gëstu ak ay kii ba gis ne forage bi ñu fi war a def bee xëy na ay juróom-benn million la la waroon doon waaye bii juróom-benn fukki million lay doon ak lu topp kon xam nga ne loolu wuute na ku jóge ci juróom-benn million dem ci juróom-benn fukk loolu sore na ci lañ nag yaatalaat liggéey bi ñoom waa Touba Toulouse ñuy soññe seeni i addiya ba def ca lañ man waaye jëmmi waa Touba xëpp ci boppam it dajale ay addiya yu am solo ak daayira mu xadimatul xidma ak ñi nga xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne contacté nañ leen ngir soññ leen ngir ñu barkeelu ci liggéey ba ñu fay ñaari traces yi liggéeyu bërëb forage bi njëkkoon nañu ko door arrêté ko ndax li ñu gasoon ngir am ndox nab boobu dafa jege te boobu leen ndox waree warees koo naan techniciens yi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba xepp def ci liggéey bu am solo. Paléocène bi ñu gasee def nañ ba 190 mètres ci biir suuf si euh, jàpp li ñu naan calcaire yi euh, ñu ngi ko commencé woon le le le ba tey le 30 septembre ñu koy réceptionné forage bi nag ci wàllu 2023. waaw 3 minutes au matin waaye nag bi ñuy préparé dossier bi c'était depuis avril euh, ba ba ñu tàmbalee ko 3 2023 tey la 30 am ñu koy réceptionné pour euh, mën a xam xayma euh, capacité forage bi doole forage bi ñaata ndox la mën a génne pour xool est-ce que day alimenter Baxiya ak aussi ñi nga xam ne ñoo wër quartier bi ko wër ci loolu lañ nekk tey di ko réceptionné am nañ débit boo xam ne. muy à peu près 30 mètres cubes heure 35 mètres cubes heure pour moi euh, maanaam heure bu ne mën na génne 35 mètres cubes waaw 35 mètres cubes soo ko déggee nag euh, mën na fonctionner presque 20 20 heures de temps 23 heures de temps su ko defee di nga mën a plus de 600 mètres cubes da mën a alimenter euh, Baqiya da mën a alimenter quartier yi bu ko dem dañ leen dem 190 mètres bu boobaa daañu fa am ndox mu neex ak ndox mu bari comme ni ko Touba ndox mu neex rek di ko di ko tuddee forage bi nag bi mu ñëwee Euh, capté nañu ci ñetti niveau cest dikk ci ñetti niveau wane na ne ndox maa ngi ñëw bu baax ci boppam ba nga xam ne bii agsi nañu ba cent quatre dix mètres ndox mi ci boppam am na euh, lu ci bari ci kaw sur cinquante xaw ma soixante mètres dañ ko cimenté ba nga xam ne bii lii yëbb ci si euh, ci armée li du mos a agsi ci ci ci ci ci ndox boobu donc ñun xam nañ ni ndox mi ñu am ndox mu protégé la dañ ci sant yàlla santaat yàlla surtout sant ci waa daayiru mosquée bi ci li ñu woo boole ñu ci parce que vraiment ñoom mënoon ñu continuer rek di dem ba euh, bi ñu woolee boo bi ñu woowee vraiment am na ay jéegu yu bari ànd ceeg ñoom euh, jéem a changé nañu gise woon parce que loolu daf ñuy wan ne rek liggéey boo gis dafa tegu ci xam-xam euh, xam-xam moom mooy tax li ngay liggéey baax projet bi bi mu ñëwee motoon na ci ñetti weer xaw ma ñeenti weer nab bi ci kaw nab boobu la ñu doon viser nab boobu 30 mètres 40 mètres lay nekk moom mooy napp bi nga xam ne bii boo gasee teen rek di nga ko jot waaye ndox moom euh, muy sax loo xam ne lii peut-être dama koy wasaareel ci Touba yëpp ñu jot ci du ndox boobu la ñu war a naan biir Touba ndox bi nga xam ne bi moom mooy napp bi ci kaw lépp luy tooke def ciy dem. sàkkatumaak nag euh, bu ñëwee ba ci nga xam ne bii dañoo euh, jege armeel muy lépp lu yëbbee ci armeel yi ci ndox moomu lay jëm lépp luy yëbbee ci ci fosse euh, fosse septique yi ci kër yi ci ndox moom lay jëm ndox moomu kenn waru ko naan muy fii ak ci bépp périmètre Touba loolu benn message la boo xam ne bii dañ koy jox parce que gis nañu ñu bari ñuy ñuy ñuy xool ndox moomu alors que ndox moom booy seet ci jàngoro moo gën a gaaw ci jàngoro ci boppam. ñun ñu bi ñu joxee kayit ñu xayma ko euh, won leen ne rek Touba xepp ñi mu lënkal ci biir dañoo bari daanaka juróomi nit rek ñoo ñëw sëkk kayit yi xool ne ni ah lii nañu changé plan bi ñii ne ko naroon defee nii amoon na ay ñu gëstu ci maag sama xarit bi euh, nekk euh, salio ci boppam ñu gëstu ci ne ah au lieu que ñuy dem comme li forage yi Touba nañu xool beneen niveau boo xam ne bi dina am ndox mu neex te dina bari dina jot mosquée bi te dina jot euh, quartier bi yëpp ci boppam ci la ñu xoolaat kayit bu ba ne ne ah ñun de bu ñu capté fii fii ak fii donc daañu jot ndox mu neex te daañ jox ndox mu ndox mu bari moom la ñuy wax nappe paléocène bi calcaire la nekk ndox mi ci kay calcaire la nekk du fépp nag la la la calcaire yooyu di am ndox mboolem projet bi nag ñoo ngi ko xayma ci juróom benn fukki million ci sunuy koppar di koppar yoo xam ni mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi ñoo koy barkeeloo. bu projet bi boo xoolee dafa àgg par exemple bi ñu ko estimé dañ ko plafonné woon ci 60 millions mais 60 millions yi boo ko xoolee day jël équipement yi nga xam ne moo ci war a am muy foore bi muy gas teen bi ba noppi ndax kenn ku leen ku nekk dafa am ku koy liggéey bu ñu gasee teen b nag war nañ am ay pompes ñu ci dugal war na am ay armoire électromécanique boo xam ne moo koy yor. ak courant beeg yooyu yëpp ak tuyau yi nga xam ne moo koy def ci biir ak réservoir yi xam ne moom la ñu la jël parce que bi ñu koy wax dañ ne nañ calculer euh, plafonné ko ci foo xam ne dana mën a bu noppee rek lépp dana mat ba nga xam ne dootuñ soxlaat di dem feneen parce que ndox it comme ni leen ko professeur ni ko professeur di faral di leerale boo amee ndox ca distribution ba wala dencukaay yi amul it bis bu jot doo jóg ci jafe-jafe ya nga xam ne moom nga loon daw donte disponibilité banque fii mm. moo tax toujours maanaam boo xoolee rek forêt bi ci jëm boppam muy gas bi ba muy àgg moo àgg ci 26 millions mais dañ ci prolongé ba 60 millions parce que yeneen yi ci des daanaka day gën a sax for léegi entreprise bi nga xam ne moo doon for léegi noppi na fi mu nekk nii moom bu noppee defal ñu euh, réception provisoire bi ci la ñuy dox tuuti équipé ko suñu pompe na moom mu doog a retiré nag li ci des ñun ñoo koy àggale ndax leen lu ci nekk dafa am am loo xam ne wàllu élec euh, électromécanique la ñoom ñoo koy liggéey muy wàllu courant bi am loo xam ne wàllu plomberie la parce que ñooy sasaare tiwo yi defar réservoir yi nga xam moom la ñuy jël ak distribution bi nga xam noonu ak na muy tëddee bu ñu xamee coût global bi laal dañ ko estimer à 60 millions mais forêt bi nga xam ne àgg na mooy 26 millions yi kon li ci des it mooy mooy rek liñ doon dagaan ci waxtaan ceeg tubaa ci kanam waxtaan ceeg maire kenn ku nekk jël ci ab pàcc ñu accompagner ko ak it li nga xam ne moom la daayira Masalikul Jinaan di continuer di jaayante Muxaddamatul Xidma di continuer di ko jaayante tubaa ci xepp it du leen bàyyi di continuer di ci jaayante ay taalibe Serigne Touba la yoo xam ne dañoo jàng kenn ku nekk it suñu borom nee na la gan ca fa nga nekk kilifa nga fa ca it ñi réew mi gën a soxla ci wàllu lii ñoo ko ŋànk ñoo ci nekk tàmbalee ci professeur Serigne Faye mi kon nag loola yeneen i domaine nag yoo xam ña nga ci biir sax ndax lu mat cent 170 euh, experts wala plus muy ay magistrats muy ay économistes muy ay techniciens ay géométriciens yooyu yëpp ñu ngi ci biir wante ñoom ñëpp nag kenn ku nekk ñu yëg ci moom ne euh, xolam jox na ko sëñ Tuubaa ca desewu ci dara euh, ca lañ taxawee ñoom bëgg a nekk ci wetu sëñ bi di ko gunge jiital ci nag wàllu ndox mi gis ne mooy jafe-jafe ci boobu léegi mënuñ cee am solution ci Touba. ñu bëgg indi solution définitive. ànd ak boroom xam-xam yi ñu seet seen xam-xam bañ ko defee ba noppi nag ci la wax ne ah lii moom lii mooy doon suñu liggéey boo xam ni mooy liggéey bu njëkk ñoom it nag waa Touba Xeet wax dëgg yàlla joxe seen xam ba lii tey bu amee ci seen xam-xam la jóge ba ca des it ñu jël seen jëf nga xam ne jëf rek mooy ko ñu jël seen jëf nag seeni i li nga xam ne moom lañu am ci wërsëg ñu jël ko def ko ci man ñii nag euh, ñu dénkoon ma wax dëgg yàlla soññee bi ma ma ma soññ ci bu baax lañ ca man it wax dëgg yàlla ñu def ko ba forage bi toll fii tey di door a ubbi. commune bu Touba Mosquée jël engagement ne dina taxaw ci courant bi ak li nga xam ne mooy yaatal ndox mi ba mën ko yóbbu ci biir kër yi. taxaw ci ànd ci ak maamu Xadimatul Xidma ak ñi nga xam ñoo réaliser forage bi lépp loo xam ne nii maire war na ko mën a jël maire bi war ko mën a taxaw ñu taxaw taxawaay bi bokk na ci li nga xam ne ni ñu ko gisee kenn ku ci nekk am na loo ci war a taxawee. sëriñ bi léegi sëñ ci euh, Abdou Lahad mi ngi may wax ne li ci gën a jàmp ci gën a taxaw mooy courant bi ñu daal di ko indi loolu moom yaakaar naa ne incha allah courant bi dana daal di ñëw ci lu gaaw am nañ loo xam ne ci euh, budget bii di ñëw war nañ ko wotee mu jëm ci euh, wàllu quartier yi lu jëm ci ndox muy addition d'eau incha allah kon xam nañ ne forage am na fii li ci def mooy war a yóbbu ndox ci biir quartier yi incha allah danañ ko dugal ci budget bi fexe ba nga xam ne quartier bi incha allah dana am ndox. bi nga xam ne moo ko doon gas moom noppi na ci li ci des daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Touba Xip waxtaan nañ ci ak Serigne Abibou Mbacke mi jiite Touba ca kanam ba li nga xam ne mooy wàllu pompe bi ak équipement bi ak ndox mi li koy dugal ba ci biir bañ mën koo jariñoo lépp Touba ci kanam jël nañ engagement ne danañ ko def. askan wi nga xam ni ñooy yeewoo ci quartier bi nga xam ne moom moo di ya muy góor a jigéen mag ak ndaw seenu mbégte foo ko takk weesu na ko. ndax ndox mii ñu tàmbalee gis te daawuñ ko am. forage bi sant ci sant ci yàlla bu baax a baax ak sëriñ bi xam naa ne tàmbali woon nañ ko mu mel ne ba yàgg yàgg mu mel ne dafa arrêté ma defe ne dañ ko bàyyi waaye bi ma gisee ñu dikkaat bi ñu gisee fii ñuy xel li jigéen ñëw di gi dañoo cee kontaan lool. xanaa di ñaan mu jëm kanam ñi ko fi def itam yal na leen yàlla gi a te yàlla gën ñoo jëmale kanam rek waaye sant bu baax a baax nag waaw forage moom loolu moom moom parce que man moom am kontaan bu rëy rëy ndax lii moom bu ñu ko gisee moom mbégte waa quartier bi yëpp la bind nu santee yàlla sant sëñ Touba sant sëñ Mountakha rek yàlla na dund dund dund ñaar téeméeri at si barke sëñ Touba ak barkeem dara maa ngi ko man naar laa di sant yàlla bu baax di ko rafet forage bi ñu ñaan si yàlla maa ngi wax si turwaa koñ bépp rek mu yaatu. at yi ci ginnaaw muy toll ci at wala at ak genn wàll dañoo ñëwoon fi def benn reportage benn retet ci manque ndoxu Baxiya biñ ko waxee. adduna bi ñu bari gis ko xam naa mu metti leen yàlla dogal ñu ciy dox xet ma ci mu àddamatul xet ma jóg di ci dox ànd ko Touba xet ñu taxaw liggéey bu ba lii ba réalisation bi man a maanaam lii nag mooy li nga xam ne moom lañ doon moom lañ soxla woon ndax kër gu toll nii këru kër dëgg nga xam ne ñëpp fi la ñuy mujj warut a manqué ndox bu ko defee ñii nga xam ne taxaw nañ ba ndox mi amit dañ leen ci sant di leen gërëm. ñu ngi sant bu baax kuréel gi parce que man maa ngi doon suivre personnellement. liggéey bi di ñëw fii di di leen rencontrer chaque week bu ma ñëwee. su weesoo liggéey bi Touba Xepp mi ngi ci ay projets yu mag yoo xamante nii bokk na ci indi ndox mu neex mi ci dëkk bu sell bi di Touba. ñun nag euh, sëñ bi joxoon nag orientation moo doon naka ngeen di mën a def ba ndox mi jóge Lac de Guiers ñëw Touba loolu sax booy seet lu bees moom la ñuy wax canal du bawoon kooku ci initiative Ablaye Wade la bokkoon ñun dañuy ñëwaat. defaraat projet bi ba nga xam ne bii war nañu mën a jëlee ndox ci lac de Guiers euh, séddale ci képp ku nga xam ne kii day béy day yore jur ñëw ba indi ndox mi ba Touba mën koo segg mën ko jox Touba ñu naan ci ba ci ndox mi ñu seggul sax Touba ak ñi ko village ko wër mën cee jëriñu ci pour béy. liggéey bu sell bi nag ñu ngi ko amal ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mbooleem liñ ci def ci koppar bàyyeekoo ci mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi ñi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi di ci soññee ndax am na ci loo xam ne ba léegi desal nañ ko ñi doon defar liggéey bi des benn trace boo xam ne mat na 8 millions kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon participer ñu xam ne des na euh, leneen lu ñu war a fay ci loo xam ne kii tabax forage bi lañ ko